une loi wala un décret est valable pour tout le monde ñun on est resté neuf mois sans travailler pourtant on a créé des emplois dans ce pays et souvent may dégg ñu ne musique caaxaan la et j'ai répondu aux gens bu dee musique caaxaan la Youssou Ndour du caaxaan bi am télévision Youssou Ndour du caaxaan bi am rajo Youssou Ndour du caaxaan bi am journal muy employé des gens yoo xam ne ils ont des diplômes il faut qu'on revoie cette copie-là de dire que musique caaxaan la non je suis désolé et je l'ai tout le temps dit dès le départ encore que le Covid on peut le soigner mais la faim kenn du ko soigner boo xiifee nga dem si docteur dafa ne lekkal alors moi la question que je me suis posée c'est euh, depuis avant-hier quand j'ai écouté euh, euh, Daniel et j'ai écouté Ngoné ñuy wax le ministre bi wax ci rencontre yi que bu bu affaire bi wàññeeku ma dañu mën a ubbi et j'ai posé la question les neuf mois que les boîtes étaient fermées où était le Covid fan la nekkoon neuf mois qu'on a fermé ici les cas augmenté jusqu'à trois cents est-ce que le ministre ne se rappelle pas de ça ou il n'était pas là parce que wax tamit man nga wax san nga offenser nit mais quand tu es dans tes droits ngay wax man sama nature moo mel noonu moo tax ma ne si j'étais là man dañ may tëj si si si réunion boobu parce que dinaa regarder le ministre en face nekk fan nga fan nga nekkoon bu ñu tëjoon fi boit yi neuf mois e les cas augmenté est-ce que le virus si virus si boîte bi si boîte bi la juddoo est-ce qu'on a une fois déclaré au Sénégal que musicien na corona non allez dans les écoles allez au marché regardez mais lan li ñuy wax sax des mesures barrières lan mooy mesure barrière distanciation allez dans les bus est-ce que am na distanciation finalement da ngay dem la communication a faussé dès le départ même si si Covid bi am na c'est la la communication a fait douter la population c'est l'existence même de ce virus ni ñu communiquer la cette communication n'est pas bonne finalement mais tu tu peux pas comprendre on joue à quoi on jour à quoi nos enfants sont à l'école léegi nga ne yéen bu leen jouer fin du mois bu bu jotee qui va payer les factures on renvoie nos enfants seen papa liggéey seen papa li seen papa yi liggéeyuñu on renvoie nos enfants ñu ñoo nekk ak ak mais est-ce qu'ils ont pensé à ça man barke démb dem na Sacré-Cœur mu sama doom fa lay jàng mais bu ma gisee récréation bi ma gis xale yi mais dama tiit man ne ça c'est quoi quand même nag ñun ñoo war a am fulla nag jóg jot na fii la transport yi transporteur yi taxaw umple euh, umplewul kenn taal dëkk bi ñu bàyyi la ñu liggéey alors ñun ñu toog ñu ne les les débits de boisson jusqu'à 23 heures mais je suis désolé débit de boisson amul licence ñii gën jàng jàng kenn amuñu licence débit de boisson que ce soit les bars ça se ferme à minuit tu n'as pas de licence moi je joue dans une boîte boîte boo xam ne am na licence la licence va jusqu'à 6 heures du matin ces nuances là qui sont dans ces décrets là le droit est régi par les hommes sa différence c'est son interprétation c'est ça la réalité dañuy sandi ay nuances pour ñun musiciens yi jànguñu ñoo ñun jàngal nañu boo ne fermé ubbi les débits de boisson ubbi leen jusqu'à 23 heures 23 heures alors en ce moment là jusqu'à 23 heures le virus moom mu ngi sieste mu ngi sieste boo ubbee 23 heures rek mi moom yeew na solu na yërëm costume ñëw na ñëw na non non non non non quand même boo boo servir quelque chose aux gens et servir loo xam ne ne yoon la nit mën na ko dégg nopp mën na ko dégg